On va recommencer. On rappelle que le Sénégal. ¿eh? Le Sénégal est champion d'Afrique Avec. L'étoile sur le maillot Mettre garde-fou, demi tour droit, classe 2015. te kat gis nga lii xew nii. waaw. ku ci dee safara nga jëm ah. astaghfirullah. père yaa wax lii. loolu waxuma ko de yàlla ko wax. loolu amul. na ñu bàyyi di fen askan wi. déedwaay ko ñii ay naafeq lañu. gémmiñ bu waxul dëgg rek wax fen. li mu daan wax rek réew mi dafa bari ay fenkat lañu. li gën a dangereux mooy. nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen. xeex ngir sa réew si jàmm yàlla bokk. du jihaat. Pierre Gongol dafa daan wax naan. réew daf lay jaral sa bakkan. fii la ko waxee woon Dakar. déglu leen Pape bi mu waxee ni ñu ko doon xoolee. ku dee ci yu ñàkk fayda yi safara nga jëm. <laughs>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 ma may leen. wàcceel aay bi. <laughs> da ngay am jomb jomb. am na ñoo xam ni jomb ñu dara. jomb naa nangam jomb naa nangam pour nit yegg ci foog dafay gëm yàlla gëm yàlla gu wér. ku ne fee akagoo foofu. Sénégal fen yi na nag loo xamee na nga ni 1000 francs xam nga ni ngeen ko jot a ngeen ko mu déet. kon pour julli si jumaa da fay. loolu war na am ci réew mel ni Sénégal. waa gouvernement bi rek dañuy fay. gouvernement bi ñiy julli si bokk ci gouvernement bi yëpp dañoo indiwaale seen wàll duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk xana méthode moo ko dajale nañu tan kenn jox ko ko yéde ruux kenn ngay ne <laughs> sama juma ji sama juma wala juma yalla ji sama juma ji père ni ko yalla la sama yoon newu ci <laughs> kon daal juma ji ko ci li da ngay fay sama juma ku ci julli rek ma jital nak ma jox dara yéen ngi nax seen bopp maki defal ñaan khudni wa salliman yo fal defal ñaan ko ma baynukum Merci, merci. Ah, merci. On a fait son fermement. C'est tous. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.